mbooloom internet Dak medina fi ci Dakar ak ci bitim rew ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi fi ci rue 11 angle Blaise Diagne ci ginnaaw miir bi nga xamantene la mom moy miru stade ibamar Mar Diop. Ah, ñu nekk fi ak ben artiste bo xamantene ne dot ko présenter artiste bi nak mom moy Docta ah, tay def li nga xamantene la mom lañu wax graffiti. Ah, mu nekk loo xamante ne la benn pàcc la ci aar boo xamante ne la lu ñuy lu ñuy lu ñuy dessiné la Euh, tey ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lu bari ci li nga xamante ne la moom ci lay yem euh, docteur ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum waa Dak Médina et euh, ñëpp ñi leen seetaan. Mm-hmm. maa ngi leen di siyaar. Mm-hmm. jërëjëf docta kan mooy docteur nit ñi dañuy gis docta te xamuñu kan mooy docteur tey boo ñu doon wax kan mooy docteur loo ñuy wax. docta benn sénégalais la. Mm-hmm. bu nekk Médina di doomu Médina. Euh, di def graffiti depuis euh, les 32 ans. formé deux générations nekk troisième génération bu me formé. Euh, judo, li judo wax medina, cursus scolaire entre euh, lay wax Grand Et là, là, qu'est-ce que je peux dire simplement C'est un artiste, un fils de la Medina il fait le graffiti depuis 1988, euh, maa de graffiti euh, j'ai formé euh, trois générations j'ai installé plus de dizaines de festivals dans l'Afrique et dans d'autres pays dans le monde et aussi installé le premier festival international de graffiti et la première structure de graffiti en Afrique et actuellement on est je vais dire l'un des précurseur du graffiti en Afrique. dans le continent africain. Le mën japonais, depuis 1988, boobu depuis commencé à faire des graffiti. la génn ci la mi waaw génn ci mbedd mi waaw mu nekk lu am solo maintenant est-ce que tey mën nga ñu wax expliquer ci ci lu gàtt rek lan mooy graffiti. waaw graffiti benn forme d'expression la mhm. boo xam ne euh, dafa bokk ci le mouvement hip hop. Mhm. mais buñ koy wax gën na sori loolu parce que mhm. tàmbale na ci euh, dundu doomu aadama. mooy bi bi nit ñi di xam ne ñooy def recherche yi. ñu tuddee leen ay archéologue seen recherche yi njëkk a def ci grotte yi dañoo gis ne ay nit daan nañ fa dund. waaye dañoo ay ay graffiti lañ fa bàyyi woon. mooy nan lañ doon dundee. Euh, dund gi maanaam dañ daan napp di huit, du rëbb ci lañ doon lañ doon ak transmission de connaissances. connaissance bi nga ne par rapport ak sen âge ñom période mhm. ñun ñu jot ci ba tay ak graffiti forme biñ ko mhm. vers les années 60 71 mhm. au niveau des États-Unis mhm. entre euh, Bronx, Chicago, Philadelphie. Nicolas colonne a part de 13 ans, 14, 15, ans. C'est une expression du mouvement hip-hop. Pour ça, des beaux mouvements hip-hop, des femmes des DJing, graffiti, danse après rap. Moi, le côté visuel, dessin du mouvement hip-hop, avec le côté physique, bien, la danse le côté pas vocal parole je vais dire mais le côté mix le DJing le graffiti sa position c'est que c'est une c'est une forme d'expression vous transmettre un message vous euh, embellir esthétique mais aussi toucher du doigt ce qui marche pas sur beaucoup de situations le graffiti euh, comment ça s'appelle en parle c'est-à-dire quand je dis le graffiti je parle du graffeur qui s'exprime à travers le graffiti donc graffiti écriture da ci am solo trop. Mhm. image yu koy accompagner mooy pour euh, éclaircir écriture bi lan lay wax. Mhm. donc boo ñëwee ci benn bërëb gis fa ay image yu bari. Mhm. da ngay xol mbinduma parce que mbinduma forme bañ ko jël moy dañuy jël lettre académique yi. mooy ñoom e, C ABCD bi nit ñi xam. jël ko daal koy rendre artistique. indi ci ay benen gisine mais li wax mo ëpp solo.

yombul jafewul mais jafewul waaw jafe na trop mhm. mais yomb na trop yomb na trop contradiction day am mooy lo bëgg mhm. jox ko cëram jox ko mhm. gëddam da la koy delloo c'est tous les métiers parce que c'est un métier c'est comme tous les métiers il faut prendre le temps de jàng ko il faut prendre le temps def ci fulla ak fayda gëstu ñun la déet def ñun la du noonu wax ñun la déedéet ba nga japp ne ah kon man li ma doon won moy base yaa ngi maintenant nak li ñuy wax style moy identité nit ki ko kenn du ko créer nit parce que il faut ñu nous graffiti mm. euh, nit buy def ben œuvre mm. day jël ci jotam mm-hmm. ci xam xam ci mën-mënam mm-hmm. taxaw ci ben une heure de temps la fay def mo deux heures mo xam une journée mo xam trois jours mais jël na ci life fam lo du kenn doot ko ko dello donc loolu yëpp def il faut mu jaral il faut nga am mbëggeel bo xam day nekk ci mbir alam lay jural résultat liggéey ba résultat gëstu ba la résultat tarbiya ba la hum. mais nak li ci ëpp solo ëpp solo moy que le graffiti c'est une forme d'expression hum. une forme d'expression hum. nit ñi dañu wara a xam ne dañ koy utiliser en bon chien Mais ñun c'est notre boulot de faire du graffiti mais duñ ko tëb duñ ko defantu dañ koy teg les règles de l'art parce que dafa am ay code ci biir boo nekkul ci bir mëno xam code yi mën nga gis nit ñi di tracer rek di dem nga defe ne noonu la ki nga xam day def graphe bu ñëwee romb nit ki tracé muy graphe dina xam ndax mi ci yoon wala nekkul ci mhm. wax solo trop mais est-ce que gra euh, est-ce que graffiti dafa une euh, ay aptitudes particulières waaw les aptitudes premières hein, mhm. mm, nit ñi dañuy wax ne faut nga dessiner mais je dis non mhm. il faut être créatif c'est les aptitudes premières mais à ah, beneen aptitude bi may jël jiite sax c'est mooy la passion il faut être passionné d'une chose boo fekkee ne bëggoo ko boo ko bëggee ba pare il faut nga am il faut daa daan manaam sa mm-hmm. li ñuy wax naan mm-hmm. sa xel mi di nàcc mm-hmm. ngay xam ne loo gis am ci xalaat

mais est-ce que graffiti dafay laaj ay moyens. waaw effectivement beaucoup de moyens même. Nous mhm. avons beaucoup de moyens mooy bombe yi ñuy utiliser yombul. Mhm. c'est très cher. Mhm. Euh, en plus yow miy def graffiti. il faut nga am yenn outils yenn outils support boo xam ne. war nga ci mën di dessiner. support boo xam ne lay permettre ngay mën di. comparer sa bopp tey suba gannaaw suba ndax bu ñu joxee exercice nga def ko tey. suba boo ñaati def même exercice bi war nga xam ndax évoluer nga wala évoluer woo ça coûte de l'argent fi ngay fi ngay liggéeyee am niveau yi nga bëgg a yéeg mhm. échelle yeeg wala échafaudage yeeg ça coûte de l'argent argent kenn mayewu ko dañ koy loué wala nga jënd ko te boo amul boo amul koom gi pour def ko day metti mhm. bomb yi du ben, ben, bomb bu nekk boo bëggee def une grande surface il te faut beaucoup de couleurs couleur bu nekk bombe de peinture la fekk la fi nga xamante la tey mooy ah, miiru Stade Iba Mar Diop bi ñu gis nga def fi ay ay ay euh, dessin yu am solo tey est-ce que mën nga ñu expliquer loolu euh, lan moko sabab li nga xamante fii ñu la fekk ni nga fiy liggéey euh, bobu ba euh, est-ce que mën nañ xam lan moko sabab. waaw déjà miru miru stade bi dañuy remercier pas. ci même moment bi. Mhm. directeur bi. Mhm. muy le directeur Diallo. Mhm. qui a qui est vraiment généreux. parce que miir bi ñoko defone amna 9 ans ci euh, dans dans le cadre du festival bi ñuy def mooy Festigraph. qui est le premier festival international de graffiti. on avait fait partie bi la ñu njëkkoon def ab ñuy collaboré avec collaborer ak structures yu bari. Mhm. Euh, may collaborer ak structures bari. structure la coopération italienne. Mhm. Euh, sur tout ce qui est éducation inclusive. Mhm. Moi, que connais. yi nit ñi nga dañu ay handicapé lañ. bokk ay société

xameewu ma ko woon mhm. ah li de ngeen wax deug la kon donc le message sur le mur du stade Iba Mar Diop mhm. partie bi ça parle des handicapés ça parle des ni ñuy wax ñam am ci deuk bi lañ bok am nañ ci njariñ ñi smaak sambak ma Mademba amé njariñ mhm. ñu ñew actualité oblige donc tay ñu ngi nekk ci période pandémie bi donc pandémie pandémie bi sonal na euh kérok ñu gis leen euh, yow particulièrement ñu dajé fi nga xamanté la moo doon obélisque ci ci ñaxtu bi ngeen don def Euh, jëm ci li nga xamante ne la mooy euh, euh, gouvernement bi interdiction yi mu defoon ba tere leen lépp lu nga xamante ne la mooy activité maanaam ci ci artistes yëpp donc ñu gisoon ngeen demoon toog foofu di ci di ci ñaxtu maintenant tey doon la laaj rek docteur yéen naka ngeen dundee li nga xamante ne la mooy coronavirus bi par rapport ak yéen seen art bi ngeen xamante ne la muy graffiti bi moom ngeen doon def. waaw euh, booy wax coronavirus damay da ngay wax maa ngi wax maa ngi quoi. Mm-hmm. parce que bi mu bi bi ñu yëgee ne am na am na ci dëkk bi. Mm-hmm. nous les artistes on est les premiers. Mm-hmm. ñu jug di ci sensibiliser population bi. ci kon ci yi nga xam information yi nga xam ne. moom la waa service sanitaire joxe. ne foog ngeen di sol seeni masque. foog ngeen di am distance sociale. Euh, foog ngeen di raxas seeni loxo. Fongeni ngeen di sëqat ci mouchoir sani, i ruq loxo jël ñandu ci mouchoir mm. on en a fait des fresques. Mm. avec les moyens du bord. Mm. état bi joxuñu kenn joxuñoo ko ñoo jël suñu poos def ko ñeneen ñi def ay woy sketch. donc sensibilisation bobu suñ ci suñu métier en mhm. tant qu'artiste dañ koy def tout le temps mhm. ci tout ce qu'on fait mhm. donc bi pandémie bi ñëwee on a pensé à à bay suñu waar maintenant bu ñuy booy bay sa waar ci mbir muy dem ñu xëy na la deuxième vague am na toogal sa kër yow mi nga xam ya yaa war a wax nit ñi ah déet mbir mi de fi mu tolloon gën na day jéggi na dayoo nañu doxalee ni ñun la bu liggéeyati bul génnati. Mhm. toogal sa kër. Mhm. te yow ngay facture ni ñoom. Mhm. am problème ni ñoom. Eh, eh, te ñu mën la woo waxtaan ak yow. te ah ne la ban xalaat nga ci am parce que ba ngeen ba mu amee de doxalee ngeen nii. waaw amaat ah gis nañ ne mi ngi yéegaat noonu ngeen di doxalee. nan la ñuy def. parce que bi gars yi commencé même ci biir pandémie bi gars yi commencé waat di liggéey. ah dañoo waxtaan ak ñoom ne leen ah. présenter leen mm. li ñuy wax naan euh, comment s'appelle ben kii sanitaire mm. ñe ah nii de lañ bëgg a mm. bu liggéey bi tambalé waté mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. liggéey bobu gaay yi ah kon li baxna baax na dem leen lu tax nga xey ben bis arrêté une partie franche de la population buy xey di gont am ay am ñu ay ay kat am ay devoir comme tout un chacun mhm. nga len buñu ñu liggéey mhm. te ñak liggéey bobu mhm. tegoo ko fenn parce que bu fekkone ne da nga len buñu bu ñu liggéey ba pare seen ñàkk liggéey euh, def né fièvre bi wacc ah waaw d'accord na boba ah, ñun suñu bop ñu nan ah gaay suñu ñàkk liggéey bi de tax na feebar bi wàcc kon mbokk nañ xoolaat na la ñuy liggéeyee mais nga ñàkk liggéey ñàkk tëj nit ñi feebar bi di gën di jéggi dayoo ah soyons sérieux on s'est dit nag jot na ñu wax ak nguur gi puisque wax nañ ak moom ci ruq déggul nañ wax ak moom ci kaw ñëpp dégguñu xam ne en moment euh, ñun on est des citoyens sénégalais, on est des patriotes. nous dara du tax ñu sacrifier suñu au contraire, on peut se on peut se mettre en danger. Comme nous le on s'est mis en danger pour que nous comprenions comprendre que nous a parce que médecins. mais nous, médecins plus de ça la population ne s'arrête pas à juste Massamba gouvernement population population qui disent la vérité aux populations en les disant les yow réellement parce que ki tok këram ne dafa feebar. Mhm. mais man dama koy seeti. Mhm. ziar ko mu nuyuma ma mu ma génne yóbbaale virus bi sama kër. Mhm. su démé liñ ma sant moy na raxasu bala ma dugg ci kër gi raxasu leen. takk leen masque takk leen masque def euh, leen distanciation compliquées compliqué Nous nous sommes pas nañ nekk propre médecin et on respecte ces mesures barrières Vous ko ah peut-être que nag yàlla li ci a la ko moi mon ko. il hmm. dina def li nga xam comme nous war et soyons sincères avec nous-mêmes il y a des choses que tu peux faire pour toi fais-le il y a des choses que tu dois faire pour l'autre fais-le parce que c'est important. Tu hmm. ci nekk arbre jéem pomme te soo aaree sa bopp di nga aar keneen ki nga xamante ne la moom moo nekk sa kanam mu nekk lu am solo mu nekk message bi nga xamante ne la moom le docteur en tant qu'artiste délivré à l'encontre de la population par rapport au Covid euh, Docteur, lan ngay tëjee. waaw li may tëjee déjà je vous remercie. Mm-hmm. parce que initiative bi c'est une bonne initiative. Mm-hmm. de mettre euh, euh, en lumière. Mm-hmm. lu lépp lu nga xam ne mi ngi baax parce que xam nga dëkk. il faut donner des références à la jeunesse. il faut ñu am royukaay. Euh, ko boo docteur moula a ah man dé samay waajur ma ak sa maam Cheikh Ibrahima Fall ñoy sama kay mënuma léppit mais dinaa mais tout temps ki fi nek da yoon ñu jox et en une euh, initiative telle que euh, Medina Dak pour moi c'est c'est c'est une initiative qu'on doit pousser et population médinois wala population je veux dire diaspora et Sénégal doivent donner un coup de main en allant visiter le site mmh. la page regarder toutes les émissions parce que tu émission bi di nga ci gis ma di ci mais ku madame Mademba madame Mademba dina am tout le travail ay ni mmh. boum le la mën mmh. il faut prendre référence signer les MAC, mais pas n'importe quelle référence et félicitations encore pour l'initiative et ci kaw ci kanam euh, jërëjëf docteur nekkoon on bi ñu leen amaloon euh, seqoon ko ak ki nga xamante la moom mooy docteur nekk artiste bu mag gravité artiste international euh, gis ngeen ko ñëwoon fi nga xamante ne moom mooy euh, Médina rue 11 angle Blaise fiche Iba Mar Diop euh, fekk ko ci li nga xamante ne la doon liggéey bi fi amaloon muy fresque bi donc waa internet Dak Medina yëpp fiche Dakar ak ci àdduna bi yëpp tey lii lañ leen fi amaloon ñu ngi leen di gërëm di leen sant mais bu leen fàtte nag abonné si seen chaîne YouTube bi di Dak Médina jërë ngeen